الأبرار فينا أسير fondation Cheikh bamb Bamba bi nga xam ni fii ci Detroit lañu ko waxtaane woon di nuyu nag jiital ci nuyoo bi sunu kilifa muy sëriñ Maam Mor Mbakke di sant yàlla it ci li nga xam ni ñu ngi taxawaat fii tey jii te boobaak léegi matagul at ci loo xam ni junjoon lanu ko muy booloo goo xam ni dafa bëggoon mbooloom Amérique mépp booloo ko waaye bu ñu booloo it ñu fexe ba organiser wu ba nga xam ni daañu mën a def loo xam ni dana nu wóor ni lii moom lu Serigne Touba gërëm la. loola nag bokk ci li ñuy tuddee ay këri Serigne Touba waaye dafa mel ni américain bi nga xam ni moo doon def waxtaan wi ñu di ko wax bi nga xamee ni wax na ci contrat bi nga xam ni Serigne Touba daf ko amoon. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ni nag kon yëf yi démb la sëriñ bi nag bi nga xamee ne mi ngi wax ba tudd ci wasilatu ruuboo di sant sunu boroom mi nga xam ne yaatal na ay këram ak ub liggéeyam te jaarale ko ci doomam ju ñu wax sëñ Muxtada kon kenn ku ne bu fekkente ni yowu nga war ngaa xam ni sëñ Mamour ubbi na bunt boo xam ni Serigne Touba ko tuddoon te booba sëñ Mourtala bi kilif bi bi wa euh, waajuram ganeegul àdduna kon Serigne Touba tuddoon na suñu ñëw bitim réew waaye Serigne Touba yi tuddoon na ni war nañ fi am ay kër kon képp koo xam ni yow nga war ngaa xam ni loolu nu sëñ Maam Mor joxañ mu ni nañu wut ay këri Serigne Touba loolu it day contrat boo xam ni sëriñ Mourtala da koo signé ak Serigne ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la Serigne Touba jël muy donn yonent bi ci kon bu nu amee loolu war nañoo nekk ay nit ñu sincère nit ñu sincère nag mooy ñoo xam ni bu ñu xasee ba taxaw ba wax lanoo wax war nañ ko def danoo jébbalu ci Serigne Touba waaye danoo féete bitim réew bitim réew bi ñu féete ñu di ko tudde diaspora ku mu mën a doon ak ku mën a doon sëb Serigne wóor na la ni diaspora bi moom Serigne Touba ko séddee Serigne Mourtada wóor na la nag ni diaspora bi. sëriñ Mourtala moo ko séddee sëñ Mamor mii nga xam ni contrat ba sëñ Mourtala signé sëriñ Touba ci yaatal ab liggéeyam ci bitim réew contrat boobee la sëñ Mamor mii signé ak sëñ Mourtala ba tax na du ci am kaf du ci am ree du ci am mbokk du ci am lenn ci loo xam ni war naa gàllankoor liggéeyam bii nga xam ni sëriñ Mourtala ko ko jox jële ko ci sëriñ Touba muy bitim réew ak lu yaatal bitim réew ak lépp loo xam ne war naa jëm ci suñu nekkin fii te lépp tegu ci lislaam lépp lépp tegu ci am njàng kon nun nanu sincère nanu jël sunu alal ak sunu jot ni nga xamee ni noo nee lanu sunu jëwriñ gi nga xam ne moo waroon jël kàddu gi muy sëñ Fallou Samb waaye xam ni ci dëkkam lañu ne tax mu ni kon man mi porte-parole fondation bi naa fi jël kàddu waaye moom li nga xam ni moom la ma wax ba tax nu ànd di liggéey liggéey bi ànd kook ñu ko ànd ñépp mooy nu sincère ci li nuy def muy jël sunu alal ak sunu jot def ci te it wëlbatiku nag nekk nit ñoo xam ne ñu ëmbal la ñuy doon am bi mooy kii nga xam ne nun xam na ni contrat la jiitu na tey jii fu mu nu joxoñ nu ànd ak moom ca loola ngir sàkku ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa bis bu ne teg leen lii ñu teg ko ndax dara néewalul ci lu dul ñu def ci sunu alal ak sunu temps jaayanteeg sëriñ Touba te xam ni moo nu gën a xam yoon wi. sëriñ Touba keroog ba mu wax mag ñi ni leen ku fi jàng rekk indi woon mën ngaa seeti feneen am na mag ñoo xam ni demoon nañu waaye ña jàppoon ni moo leen gën a xam toog nañu ña demoon ñee nañu ña toogoon. loolee nag histoire dana répété wu nun du nu dal sëriñ bi. bis boo taxawee ak loo mën a joxoñ sa waxi démb nga ni nii la sa waxi tey jii nga gis leneen lu dul loolu nga ni lee la na la leer ni sa waxi tey jooja mooy sunuy wax dunu la mooy ci benn côté ànd nañu ak yow ngir sëriñ Touba ndax doy nga nu ci lépp jàng nañu xam nañu yàlla dimbali nañu am na ni sëriñ waaye sant nañu sëriñ Touba ci nim la lii na nga xam ne mooy këri Serigne Touba yi. nu bëgg bépp waxu nu ku nekk ci daayira daayira yi nit ñi ñu ngi ci daayira yi ñoom waxaale leen ndax ñu ngi ci biir daayira tënku nañu seeni daayira dugg na fii ci Detroit lañ ko waxtaane woon ñaar fukki état ñoo ca àndoon tey jii ñu ngi ci fanweeri état ak benn kon loolu ku ne xam na ni Serigne Touba nangu na boobu liggéey ni nu koy defee it nag ñii dong la bàyyiwuñu benn murit képp koo xam ni murit nga te wax ji nga xam ni Serigne Touba waxoon na ko ci wasilatu rubboo te booba sëñ Murtala gëneegul àdduna xam ni moo yaatal ay këram ci bitim réew xam ni loolee buntu la bu Serigne Touba tijji te ku ca dugg raw dañ ni murit bu mu mën a doon laaj nañ la weer wu dee ñaar fukki dollar ak juróom-ñett muy bis bu nekk benn dollar bu nu ko defee donte 3500 murit lañu ñaari weer yu ne mën nañoo daaneel këru Serigne Touba te xam ni fii nu toll léegi dootul ay wax jëf la. kon murit bu ne moo nga xam sa jëkkër mbaa nga xam sa doom mbaa nga xam koo yéene lu baax na la wóor ni bis naka tey benn jëng téyetul fu weer dee na nga yëkkati ñaar fukki dollar ak juróom-ñett te xam ni foo déggee ñaari weer ñu ni jënd nañ kër Sëriñ Tuubaa boo ëllëgee nga mën a tiitaroo ci sa njaboot ni leen nee leen sama baay wala sama ndey bokk na ci ña nga xam ni seen alal dem na ci këri Sëriñ Tuubaa yi sëñ Momar dool wooteetul ci leneen nun ñi déggatuñu leneen lu dul loo xam ne lu concret la muy jëf te jëf jooju mooy kenn ku ci ne murit bu mën a doon ba ne New York ba nekk Atlanta ba nekk Los Angeles ñépp ci yem kenn génnu ci weer wu dee ñaar fukki dollar ak juróom-ñett ñu dajale ko doon nit ñu sincère duñu lekk alali Sëriñ Tuubaa duñu ko duñu ko foyee def ko ci kër yi ngeen teg ci seen bët bu déwénee bu sëñ Mamoor ñëwee ñu mën a wàññi ay kër wan ko lii ñu saxoo ko te ni mooy liggéey bi Mbakke yàlla na fi yàlla yàggal yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar ba nga mucc ci lépp suñu xol sedd na jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sang su tedd si ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nuyoo bu sell di nuyoo bu lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa sunu sang te di ko jégalu bu wér wér muy sëriñ Maam Mor Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu mel ne jotaay bi yàgg na lool kon dañuy tënk rek muy doon kàddu yu gàtt di kàddu yi sant tukkee ci suñu jëwriñ di suñu imaam sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne mooy njiital liggéey bii ñu nekk di Detroit euh, di ci fondation Cheikh Ahmad Bamba bi nekk ci Detroit gi Michigan kon euh, sëriñ bi sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi ngi wax ne mi ngi lay nuyu te di la dalal jàmm fii ci Michigan di am mbégte bu baax a baax nag ci fekkaat gi nga xam ne fekkaat nga ñu ko fii ci dëkk bi bi ñaan itam suñu boroom yàggal la fi te wéral la te nga yàgg ñu fee fekk ci barkeb Seexul Xadiim ñu yàgg ànd ak yow liggéey bii ñuy liggéey muy liggéey Serigne Touba te nga am ci ndam am ci ngërëmal sëriñ Touba am ci ngërëmal Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax xam nañ ne loolu rek mooy li ci yitteel suñ boroom aar la aar nu bañ mën a ànd ak yow aar liggéey bi sàmm ko ba dara du ci fanqe ci say loxo ak ci suñu loxo da nga yàgg fi lool nag te wér ci barkeb Seexul Xadim euh, kon sëñ bi li ñu def rek mooy ci ndigal sëriñ Abdou Lahad mooy présentele li nga xam ne mooy liggéeyu fondation Xaadim Rasul of Michigan comme bu ñu santee mbokki taalib fi jaar yépp mu mel ne sëriñ Abdou Salaam wax na ko du jaar ñu ci jaaraat ñu ci sëriñ Gaye tudd nañ leen du jaar ñuy limaat kenn waaye ñu xam ne buñ sañoon mboolem ñi fi nekk daañ yëkkati kàddu waaye gannaaw ñoo ngi yéen ba Kentucky ñoo ngi yéen ba Cincinnati ñoo ngi yéen ba Raleigh ñoo ngi yéen ba Atlanta ñoo ngi yéen ba Memphis yaakaar naa sëriñ Abdou dana xam nan la koy séddalee ba buñ béréb buñ dem mu am ñu mu jox ñoo ñooña wax ca loola buñ jàllee ca beneen béréb mu jox ñeneen kon yaakaar naa yéen borom xam-xam yépp da ngeen mën a génnee li ngeen xam lu génn Detroit it mën a génn ci beneen état incha allahu taala comme niñ ko defe woon def ko ci yi nga xam ne jot nañ cee dem muy Baltimore Washington ba ci New York ba fii ci Detroit kon ñu ngi leen di siiwar waxtu wu jot di ànd ak yéen tam ci liggéey boobu di ñaan ngeen yàgg ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi kon sëriñ bi sëñ Abdoulaye wax na ne maanaam liggéey bi ñuy liggéey di euh, fondation Khadimou Rassoul of Michigan moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ji muy sëriñ Abdoulaye mooy imam bi ñun ab dongaam lañ boo xam ne dañoo nekk ci kanam rek ci tool bi fu mu nañu teg leen fa seenu gopp ñu teg ko foofa ñu ni tudd nag di tudd jëwriñ waaye dool di lu ñàkk solo muy ab baat waaye ñu li nu ñor ci liggéey bi mooy sàkku ngërëmal sëriñ Touba fas yéene ko teg ci suñ kanam te duñ dëpp mukk nag feek ñoo ngi noyyi loolu lañuy ñaan suñu borom subhanahu wa la di la wax nag ne moom jëmm la joo xam ne ju teg tànkam ci siraatul mustaqima la liggéey bi ñor ko lool waxtu wu jot itam mënu ciy soññi fépp fu ma fuñ ko woo man dama koy yónni waxtu wu jot maa ngi koy jégalu bu baax a baax ndax lépp lu ñu ma woo ne ma nangam moom laay woo yónni ko ca mu dem doxi ko dikkaat woo ma ne ma la nga ma waxoonte nangam ak nangam résultat laa ca am ma ne ko jërëjëf kon sëñ Abdou Lahad loolu la nekk ci dëkk bii yittey soxla ku am soxla ak ku mën di doon suñ ko woo ne ko dem ca mu jóg dem dikkaat te daa yor liggéeyam comme ni ko ñëpp yore laajut addiya ab day def ab boppam ab taalibe Sëriñ Tuubaa di liggéey comme di ñëpp liggéey kon ñu ñaan nga ñaanal ko suñu borom jàppale ko ci liggéey boobee mu wax ne mi nga ànd ak liggéey boobu muy sëriñ Mouhamadou Sarr mi nga xam ne moo jiite daaray Kaamil comme ni ko Cheikh Mouhamadul Mourtada digle woon nga xam ne altine ju jot dana wàccee ñaari Kaamil fii ci kër sëriñ Touba gi ànd koog waa daaray Kaamil jëpp moom itam waxtu wu jot sëñ Abdoulaye rek lay diglu lépp loo xamante ni bii wax nañu jëm ci loola mu dox jëm ci loola kon waa daaray Kaamil jooju ñu ngi lay seeral seen liggéey xam ne waxtu wu jot ak lu man di xew lu xat-xat altine ju jot daan daje fii bu huit heures jotee jàng fi ñaari kaamil sëriñ Abdou Lahad mu ngi lay seeral liggéey boobu xam ne ñu ngay doxee foofu ci Detroit ñu àndit ak ak ñoo xam ne ay tuut tànk lañ ñoo xam ne suñu borom dogal na ne alxuraan yàlla ji mu ngi ci seenum dënn maanaam lu mat ay at a ngi nii ñoom itam waxtu wu jot weeru koor ñooy seddoo kaamil di ko naafila fii ci Detroit ñoom itam ñu ngi la koy seeral ñu ngi ci bokk ci waaye daare kaamil ji sëriñ Abdoulaye waxee itam ne liggéey boobu mi ngi ci ànd ak sëriñ Ngaye mi nga xam ne moo jiite daara ji te taxawoon fii léegi doon la wax li doon tariloo xale yi daara ji xale yi daara ji tarifi alxuraan ji nga xamante ni bi ñoom lañ leen di jàngal te xale yi ëpp loolu xale yi loolu nag daan ci profité ndax dégg ngeen li sëriñ ah, Mourtala Mbuub wax te yaakaar naa am na ci ñoo xam ne tàmbali woon nañ seeni xale di jàng ci internet bi kon ñu moytandiku suñ xale yi tàyyee ñëw indi sa doom wala ñàkk lu la ko andil bu mu tax ngay bàyyi muy jàng ci internet bi koo xam ne xamoo fu mu nekk bu dee sëñ xaadim busa d'accord xam nga sëñ xaadim mbusa mën naa toog di ko jàngal ci internet waaye bul nangu kenn di jàngal doom ci internet te xamoo kooku ku mu doon kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te yooyu bari na léegi ci iska yi beeg ci feneen nit ñi di fi jàngee ci koo xam ne sax mën naa am kay jàngal sa doom xamoo ko kon nag ñuy soññiwaat baaraay xale yi xamal leen itam lañ waxoon ñoo ngi ci fas nañu yéene incha allah daañu am transportation boo xam ne dana jële xale yi ak di ko yóbbu te duñ ci dëpp incha allah te amuñu ko bu soobee yàlla dafa am projet yu nekkoon ci suñ kanam ñu ci doon dox bu projet yu pare incha allah projet boobu buy ñëw lay doon. kon euh, waa daara jooju Serigne gay moo ko jiitee ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal du jar ñuy lim tri waaye mbooloo lañ ñoom ñëpp samedi ak dimanche yu jot ñu ñëw te ñu ci ëpp ci ñoom dañuy dawal taxi. ku ne xam ne taxi li ëpp ci lim gën a biisi fii ci Detroit mooy samedi. te samedi bu jot ñu bàyyi seeni liggéey ñëw ngir jàngal xale yi te kenn mësu leen cee fay benn dërëm mësuñ cee laaj dara kon loolu day baax boo ñëwee ñu seere la liggéey boobu mu wax itam ne liggéey boobu mi ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy bureau bi mooy bureau exécutif bi ak board of bi mooy te Serigne Thierno Diop jiite ko ñooñu ñooy waxtaan lépp loo gis nag la ko tàmbalee ca 2002 ba jëmmi tey jii ñuy wax ak yow lu fi taxaw ñoom ñoo ko xalaat ñooy dajee di réunion guddi ak bëccëg di xalaat lan la ñuy def ba mën a yóbbu fondation Xaadimu Rasuul fu kawe njort eh, taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp waxtu wu jot ci loolu la waxtaan di ci def ay diisoo di ci def ay réunion léeg ba seeni dënn di tàng waaye ba la ñu fay jógee ñoom ñëpp daañ trouver solution kon loolu ci lañ dox ba agsi fii tey jëndoon nañ kër li Liwanos nga waxoon na ngeen jël avocat topp ko ndax ba kër googu bëgguma ngeen ñàkk ko muy kër goo xam ne bu yéeme la woon waaye site bi la ngeen fa bëgg a def mënuñu faa def ndax lu tax loola mooy ay nit yoo xam ne ñoom dañoo wax ne dañ leen di tànqal ñu yóbbu ñu foofu bañ demee ba sonn ci nga ne kon say woon ngeen seet nu ngeen ko def yàlla da leen dox lu ko gën suñ borom nag jox nañu lu ko gën mbàkkee te lépp ci yow la damay faral di wax ne lii sang su baax si doon wax léegi Sëriñ Murtala yow fii ci Detroit moom suñu borom dogal na ne yaatal gi wér nañu ne yow yaa ngi koy def ci li la Sëriñ Murtala bàyyee ndax ci saayir moom Sëriñ Murtala ak siwut fii yow lañ fi gis yaa fi jëkk a ñëw 2004 ñu def journée Cheikh Ahmad Bamba man journée bi ma njëkk a fekkee ci Detroit 2005 la benn journée bu ma fi raw mooy 2004 te boobaak léegi yaa fi di fi ñëw journée boobu moom lañ jëkk a def fii ci Touba Detroit te yow moom yaa ko teew woon kon nag liggéey boobu yaa ko indi fii mu nekk tey jii kon yaa yaatal liggéeyu Serigne Touba yi ni ko Cheikh Mouhamadul Mourtala bëggee woon yaa nga ci yoon woowu di ci dox Serigne bi wax ne tim <clears throat> ci biir boot boobu muy wax la sàkku nga ñaanal leen ndax ay jàmbaar lañ ay xale lañ ñi ci bari ñi ay ingénieur lan ñu ne ñu ne ngi ci borom xam-xam ñoo xam ne ci réew mi leen jànge wanoon a jëm ci li neen di woote mënoon a woote ay po mënoon a dem toll ci ndaw ñu bàyyi lépp nag foofu Sëñ Tuubaa eg seen kanam waxtu wu jot ñu ñëw di dajee di réew ñoo gis nga leen léegi fee ñu nekkoon ña nga fa gis ñëpp ay tuut tànk lañ te liggéey bi fu ñu nekk ñoo ñu ko fa yóbbu te am itam ci biir ñoo xam ne dañoo jàppee seen bopp ay Baay Faal wallaahi lancim dañu nekk ci kër gi bi journée bi jubsee ba bët set léeg fi la ñuy fanaan ba seen kër fi laay toog ak ñoom du ma leen fi a bàyyi ndax ñeewantu leen te amul lenn luñ leen ci fay am na liggéey bu ñu doon def ci suuf ban indee nit mu wax mu xala ñu wax ko estime noo koy defee douze mille dollars la wax ne mën na ko cee def ñaari nit ñoo jaayante def ko te xam ne mën nañ loola ñu def ko ba noppi def ko addee Serigne Touba kon ñooñoo tim du ñàkk ñu wax leen ni leen sëriñ bi gis na leen ñu ñaanal leen suñu borom ñu dajee ngërëmal Serigne Touba ci li ñuy def kon daal lii mooy Detroit Serigne Abdoulaye wax ne la ca tegee mooy ñi nga jàkkaar loolu mooy soxna yi ci njiital soxna Njaay te nag ñun dañoo am lu jafe ci Detroit mooy jigéen jiite ba mu jàgg nga bàyyi àndaat ak ka jiite topp ci gannaawam yàlla dañu ko dimbalee ñun ñoo am jigéen ñuy xëccoo na nit ñi jéggal ci waxin ji amuñu daayira maam jaara ñun daayira sëriñ Tuubaa la ñor amuñu naan daayira bii mooy maam jaara wala bi mooy nangam bu maam jaara aye daal bureau bi dajee waxtaan ne nan lañ yóbbu Porokhane ñu ne nangam ñu jël leen ñu dem yóbbu bu sëriñ Touba ñëwee ñu fab def ci sëñ bi waaye ñun benn daayir lañ yor genn kees lañ yor lépp ci alali sëriñ Touba la lu xew ñu yëkkati la nga xamante ni moo fa jaadu def ko ca ñoom itam jéemuñ ci xëcc jéemuñ ci def lenn waaye nag amul kenn ku ñu mën nag ci benn liggéey boo xamante ni bi daañu ko defal soxna jaara su ndax xam nañ soxna jaara moom mooy sëriñ Touba kon nag jigéen ñii fi nekk itam kenn mënu leen ci réew mi ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal soxna jaara waaye nag am nañ fulla ju toll na nag ñoom itam toppee nangu nañ ko topp ci gannaaw góor ñi kon soxna Njaay moo ko jiitee ànd ci soxna maam Fatou li may wax ne ña jiite woon ba noppi wëlbati ko toppaat seen gannaaw ba noppi nangoo ànd ñoom ca liggéey boobu muy soxna Kumba ak soxna Ayda ak soxna Amiloo ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp boo leen fekkee ci waañ wi doo leen xàmmee ndax te kenn ku nekk da ngay futtiku jël liggéey bi yaakaar na sa liggéey bopp te comme ci neexoon nga wax ne man ka dañ maa jiital ba mu yàgg ñu jëlee ma fi te dañ ñun ñu leen fiy yàgg ñu la dañ lay génnee tekkee ndax dañuy bëgg rek toujours waxtu wu jot ñuy gis liggéey bi di gën a avancé di gën ak di xool fan lan toll ci bëgg Serigne Touba ak fa xam liggéey bi jiitee tax ñu nekk ci wa illaa dañoo bëgg a rek muy comme ci man doon dañu dem mu yàgg rek dañoo bëgg nga nopp jox diw mu jël liggéey amu ci kenn ku waxee ne dama dama damaa ñëw leen jox leen liggéey bi muy ay liggéey ñoo ne ko dangay ngay nopp lu jox diw soxna Kumba ñoo ko wax te kun ko ci wax danga koy joxe kon nag sëriñ bi loolu day baax ñu seeral la ko xam ne ay taalibe nekk fii ci Detroit yi di taalibey Serigne Touba di ay ndaw di sàkku ngërëmal Serigne Touba ñu bëgg nga ñaanal leen ba liggéey bi nga xam ne sëmb nañ ko dara bañ ñu cee gàllankoor ndax ay nit lañ te seytaan dafa bari doole te li yàq dafa bari te mën naa gàllankoor kenn ku nekk. kon nag lii xew ci daayira yi nga xam ne xëccoo ak bëgg daraja ak bëgg tur lépp lu indi problème ci adduna bi ci yoon Serigne Touba bi loolu la mooy bëgg daraja te kenn du dara ku du Serigne Touba bu nu fabee Serigne teg ko ci suñu kanam dox jëm ci te bañ a gestu ci suñu gannaaw. xool mag ña toppoon Serigne Touba nga xam ne ba ñu ànd ak ñoom dañoo jaamu woon yàlla ba àgg foo xamante ni bi kawe na njort nga xam ne ay nit yàlla lañu woon gis Serigne Touba dëppaay lépp topp Serigne Touba ñun ñi nga xam ne jànguñu dara lu jéem a fertaatu ay baati arab ba yaakaar ne dara lañ dikk bëgg a def Serigne Touba wala njabootug Serigne Touba ak morom bay bëgg daraja ak bëgg tur bay jéem a tollale sa bopp ak ñoom képp ku mu nekk ci yow say bon nga dem tuub te ñaan suñu borom jële la ca te nga doon ab taalibe mel ne maam Cheikh Ibra Fall Serigne Issa ñoom Serigne Darou Assane Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ak maam Mor magi mag ñi nga xam ne dañ daan la ay kaamil ba noppi noppigul bétiku laxasaay ànd ak Serigne Touba di liggéey ñooñu koñ toppoon kooko ku mu doon buñ ko doon laaj borom xam yi kenn du ko ci tontu ndax ñooñu nit yàlla lañ yoo xam ne àggoon nañ ci suñu borom foo xamante ni bi kenn ku ne doy nga wasila ñooñu nag bu ñu wëlbatikoo di liggéeyal ni topp ci gannaawam sëriñ bi wax na ko dégg naa mu ne sama yëfi bopp lu neex waaye def ma ko ci man Mor Mbacke maa ngi jégalu ci kàddu gi waaye liggéey bi sëriñ Tuubaa bi moom dama ci amul sago kon liggéey bi moomu ko yëfi sëriñ Tuubaa noonu mu ci ñàkk sago nag wallahi lancim noonu la bari ay taalibé sëriñ Tuubaa yoo xam ne ñi ngi ci ba liggéey bi noonu la ci ñàkke bu ko defee nag lay tax ñu man cee bañ a am jafe mooy kenn ku nekk gëm ne yëf yi moomoo ko sëriñ Tuubaa borom sëriñ tubaa moomee ko moom nag kenn ku ne da ngaa am ngërëm looy sàkku sëriñ tubaa nag li wax règlement intérieur muy yoonam wi dafa am nu ko ñagee tege ko noonu ñooñu ñu war ko respecté ñu itam fas yéene yoon woowee nga xamante ni bi moom la sëriñ tubaa wax te sëriñ Mourtala Mbuub junj ko léegi muy sifaatu sadiqil murit mu tënkee ko yoonu ñu fexe ba ñoog ci loolu am na la ñu waxoon ma sëñ Masamba Jaara Mbay sëñ Masamba da ko waxoon ne ko damaa bëggoon ànd ak yow rek mel na sa takk bi foo jëm ma jëm fa bokk sa der bi mu ne ko solo si foofu solo si nekkut ci ànd ak man fu ma jëm nga jëm fa bokk der bi solo si nekkut foofu solo si mi ngi ci jëfe ndigal ak bàyyi tere ne ko nekk ci sa bopp ak ne fi man ak ne ci man bokkuñu ay fay fii sa man ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp dunyaa wa uxraa nga féeteeg sa lépp benn fi nekk nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niiraani ahsanallaahu mina niiraani ne ko ku ne ci man ma sàmm la yor la ba far jofal la njool màkk mu dëkkoo la ku ne fi nag ngir koom mi ak saahir si ma bàyyi laak yooyu saa baatin dellu si buñ nekk ci sëñ bi ngir bëgg intérêt na nekk ci sëñ bi ngir bëgg liggéeyam bii nga xamante ni bii moom la indi ngir lislaam ngir yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de yeesal googu sëñ Mamour junjoon ko fii bi mu fi dellusiwaatee yaakaar ne yeesal gi wërta yam rek ci Serigne Touba Serigne yeesal na dem ndax dañ koy bàyyi noonu mu ràpp déedéet dafa dellusiwaat moom itam nag ngir bëgg la Serigne Touba yeesaloon nit ñi dem ba bëgg koo fooyee def ko ay caaxaan daf koy feccukaay daf ko bëgg koo def baal di ko wooyee lu kenn xamut bay seexal yu kenn xamut yooyee ñu fas yéene loola jóge fi ay murit lañ taalibe sëriñ Tuubaa lañ duñ nangu kenn di sabot yoonu seexul xadim wi loolu duñ ko may ma samba duñ ko may ma demba ndax taalibe sëriñ Tuubaa lañ kon nag ñun ñëpp nañ maase takku fas jom te xool mag ña toppoon sëriñ Tuubaa lañ dajoon ci yoon yi ba yoon yu agsi fii mu agsi sàmm googee ñu ko sàmmoon moo ci war képp ku mën di doon la ko tàmbale ca tuut tànk ba ci mag kenn ku nekk la waroon mag ña moo la war kon nag nañ la ko saaywaat nañ koy dindee nag du jëli yet di xeex wala jaasi mais am fulla ju toll ne orienté suñu bopp ak suñu njaboot xamal leen ne leen lii mooy dëgg teg leen ci te dox jëm ci bu ko defee suñu borom mën nañoo dimbali ñu ngi soog sant nag mbooloo bu baax a baax di leen xamal ne guddi na bëgg ñoo guddal di yoo xaax li sëñ Kayta Thiam doon wax léegi muy fondation Cheikh Bamba soxna Kumba mi ngi yor ay carte yoo xam ne carte barkeeloo ci fondation Cheikh Ahmad Bamba xam naa bu noppee dana leen ko tasaare incha allah kon sëñ Kayta sas na leen wax na fii mooy headquarter bi Detroit ñoom ñu jiite liggéey bi di ci ay jàmbaar yoo xam ne di ci dox doxin wu am solo di ci liggéey loo xamante ni bii wax dëgg yàlla fi ndool kawe na njort ndax wax nañ ne bañ ñëwee fii dañu ko wax Chicago dafa waxoon di wax fii këram daal ne kat ñun am nañ kër goo xam ne am nañ cinquante bëgg ku ñu ci jàppale sëriñ bi ne kon na ngeen ca taxaw fondation bi daal ne comme sëriñ bi ne na ngeen ci taxaw nañ ko jël muy suñu première action bi muy suñu liggéey bañ ko waxee fukki fan ak juróom jox nañ ci Chicago mille dollars te dajaleñ ci trente-quatre mille ñoom dañ ne lañ doon laaj man na ñu ne leen nag kon léegi liñ soxla ci yéen mooy fexe ba këyit yi nga xamante ni bii moom lañ soxla ngeen topp ko ni ko sëriñ bi bëggee liggéey ko ñoom nag jënd nañ kër ga waaye ña ngay saytu li jëm ci këyit ak loolu andil ko fondation Cheikh Bamba su ko defee lu ca waraat ñu continuer ca action yooya kon fondation bi fii fii lañ taxaw ba noppee dajale addiya yóbbu ko ci sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar jàppale fi ay nit yoo xam ne fii sax ci Detroit la xewee muy suñ mbokkum taalibe boo xam ne dafay wàññi ko fondation bi taxaw ci taxin woo xam ne ba ba bañ nekkee Amérique ba léegi mosuñoo gis loolu mooy ku fi wàññi ñu taxaw taxawoon ko wenn taxawin woo xamante ne bii duñ ko mën a wax ci mbooloo mi waaye ak njabootam ci jëmmi boppam ñoo sant bay jooy ndax xam nañ ne kenn mës koo am ci Michigan te loolu nag fondation Cheikh Ahmadou Bamba moo ko waral yooyu ak ndimbalante yooyu jàppalante boobu ak kër Serigne Touba yi xam ne sëñ bi daa bëgg lépp ñu def ko ci turu borom muy Cheikh Ahmadou Bamba maanaam mu wax ne turu kër yi na ngeen ko def ci turu borom muy Cheikh Ahmadou Bamba képp koo xam ne am nga ci looy révolté am na ci loo naqari kon am na loo ci nar na nga ñu ko wax ndax damaa yaakaar ne kër gi nga xam ne yàq moom ci sa tur nga koy def wala sa turu doom wala sa turu nangam léegi nag kii ne kër yi man bu leen ko def ci sama tur man sëñ Mor bu leen ko def ci sa turu sëñ Mourtada def leen ko ci turu Ahmad Bamba muy kër ga ca Detroit ga ca Atlanta nañ nekk ci wenn tur damaa yaakaar bu waa Detroit gépp sikkoon ba bëgg jaay kër gi te kër gi nekk ci turu Cheikh Ahmadou Bamba fondation Cheikh Ahmadou Bamba Nord America bokk ko waa Detroit duñ mën a jaay kër gi ndax bu boobaa duñ ci amoon sañ-sañ ndax kër gi képp ku ko bëgg a jënd da ngay woote ensemble central ci Amérique te Amérique ñëpp mënu ñoo jubadi kon ñu ngi sant mbooloo mi di leen gërëm di sant mbooloo mi ko fi teew di sant soxna Astu Mbàkke bu baax a baax na di sant soxna Astu bu baax ci jàpp gi nga xam ne mi ngi koy jàpp ci liggéey bi mu am ci ay conseil yu rafet di ñu ko jox ñu ngi koy sant bu baax a baax gis nañ ne ku nangoo jàppale sëñ bi la ku nangoo topp ci gannaawam la ku nangoo ànd ak moom la ku nangoo tiim jàppale jigéen ñi ci liggéey bi ngir ñu gën a jàppale liggéey bi sëriñ Mourtala bi des sëñ bi di la seereel ak cant rek ci lu gàtt muy daaira tijaan yi muy sëriñ Abdoulaye Ndaw jiitu ko ak sëriñ Pape Diaw sax mi ngi fi demagul euh, lépp lu ñuy ànd la sëñ Mourtala wax ne kër gu lislaam mën naa waat sëñ Tuubaa ne kër gi moom kër gu lislaam muy tiijaan muy xaadir muy layeen muy ku man di doon dañ ne ne kër gaa ngi nii lu waay bëgg a def ñëwal ñoom it ñu am fulla ju toll ne bépp événement bu ñu def fii la koy defee te damay woo rek ne ma événement sàngam date sàngam la le 13 incha allah fii la ñuy defee seen journée le 13 août fii la ñuy defee seen journée seen sëriñ ñëw fi la ñu ko defee woon daaw waxtu jot fi la koy defee li bépp événement buñ am daal ci l'islam di événement jullit yi fii lañ koy defee ci kër Serigne Touba gi di kërug gi ñu ngi leen di sant ñu wax ne nag bis bi nag ñoom def nañ ci loo xamante ne bi soxlawul ñu koy tudd ci mboolem waaye ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di wax wa rahmatullahi taala wa barakatuh islami xaddaanam li suq dawa man futuwaatin akunu بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا لذو دوام الفتوحات لأكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا من سن خير الله يغني أو يدر فساك في دارين سكد ودر النفع والضر من الرحمن ليس من البيدان والسودان الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان العنف من الجبار ليس من الفجار والأبرار أدر والنف من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب fekkoon na Seex Bamba defoon na jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka sukar ca gayliit bamba dal di ñuy maa ñu noon ba faf ko gedd kapten ba ñëw ne bamba jàkk xew fii bul nu xatal sa jullikaay bii xaju fii kar ca gawëq ñëw tasaare jàkka jaam njol màkka ñëw fa ne ko am nga maxraja nga tabax yaari juma ci ma te dal na deesal keew ma da tabax yaari juma ci ma te nga dal di yeesal keew ma danga tabax juma ju rëy fa Jurbel kenn ko buddi kenn du julli narmal danga tabax jumaa ju rëy fa dem daaru ak tuubaam wajal binaaya binaa nuuriya la waxoon bam laat dem bërëm i taxa tax mu taxaw suy waaxu te tax ci ko taxaw la baaxoo sëriñ bamba commande nga alkaati yey commande xàmmeewu leen ku wax mu teg ca kaddu boppam taxul mu jël ko saa bu jëlee kaddu lislaam tax mu jël kaddu yëkkati yoonu sëriñ tuba wane ko moo tax mu jël kaddu fii ci Detroit nag sëriñ fàllu sàmb wax nga lu am solo ni Cheikh Mourtada jotu fee agsi waaye mel na li sëñ Mourtada agsi na fi ndax lan mooy jëmm ji toog la sëñ Mourtada daan bañ lay bañ lam daan nangu lay nangu te ci nekkuk sëriñ Mourtada la jël li mu gënoon a fonk muy marché bii di ko ko jiitaluloo di toog ku ñëw mun la demal ca marché ba te topp ca ginnaaw sëriñ moor kon Mbàkke yàlla yàlla guddal saw fan liggéey bii nag am na ko wax léegi sëriñ bi ku ko ci mere ak ku ko ci bég la yemale xam nga lu ci wut ngërëmal sëñ Tuubaa kenn kum ci wut bànnee xam amul ku dul sëñ Tuba maa ngi waat ci sëñ tubaa tamit ni taalibi bu ko déglu te topp ko ëllëg da nga gis sëriñ Tuba te sëñ Tuba dina bëgg ci yow xam nga lu tax sëriñ bi moo ne doo jàppee ci ku àgg da ngay àgg te moom intere yi boppam taxu ko jóg li mu bëgg sëñ Tuba ko man te defal na ko lépp lu muy digal la nit wala mu leen koy wax ñun taalibe yi suñu njariñ la ñun ñi nga xamee ni ñoo bëgg ngërëmal sëñ Tuba moom moo ñu gën a xam yoon wi te teg nañu ci kon nañ ci tege te dégg ndigalam ab murid nag laa taxawlu chayan bi xayri isni fal isnu sartun fi xaboli sha'ni sëriñ bay jaxate nee na taalibe lu mu jëf-jëf te àndul ak ndigal yowmal xiyaam suñu borom du ko nangul mbàkke nag ñu joxe ñaari message yoo xam ni say mbokk ko wax da nga ni nit du ne baax na dañ naan ndax bokk yaa ko wax ñu ni bokk yi baax ya dañoo jot fii sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifab sëriñ Sohaybu moo joxe ndigal tamit ni nañ ko wax ñëpp dégg ko sëñ daam sàmm mais maa moom ñu paas ñu ko ñu ni ko ñu ngi ci tournée bi mu ni na nga sama cant ci sëñ Mamor waxal waxal mbooloo ma ni leen bu ko ko wax dangay bàyyi ba mbooloo ma toog ndax loo lii dañu ko defal ñun ñii ñoo ko waroon a def kon nee ko li mu séddoo ci sëñ Tuubaa moom ràppul raful bay na ko ba mu sedd wicc di ñu bayal suñuy tool noonu la ko waxee ni moom li li mu li mu séddoo ci sëñ Tuubaa bay na ko ba mu set wicc di ñu suñuy tool nee ko fa mu nekk ñun la fa nekkal ndax du ko fa sëñ Tuubaa fekkoon durus te du changé toggin xam nañ ko bu baax nañ ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam kon Mbàkke loo yàgg doyul sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Karam mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Afe wax ma ni ma li ko sëñ Touba sédd yeyoo na ko mission bi muy dox ci diaspora bi ñëpp ci gis seen bopp nee ko li ko sëñ Touba sédd na ko taman na ko kon Mbàkke dañuy ñaan soo fan gudd nee naa bayitub sëñ Touba bii wa maskani ijaal maskana tahallumi wa mabdihal fikrati wa tafahumi su ne woon aw lu ñuy sol ku la ko sol mu jot la sëkk ndax lan mooy ba ngay xalaat université sëriñ Touba ba ngay xalaat ay école te sëñ Tuubaa bind ko booba kenn waxagu kenn xalaatu ko yaa njëkk xalaat université Cheikhul Khadim te manga nga ca te te te ma nga ca Matlabul Fawzayni sëñ Tuubaa ñaanoon ko en 1888 kon yow euh, sëriñ bi moo la liggéeyloo moo la bayloo moo la doxloo ci waar wi kon ku ànd ak yow ëllëg sëñ Tuubaa dina bég ci moom yàlla na yàlla guddal saw fan te wéral la nañu teewlu te déglu ndax lu muy wax intérêt yi bopp euh, euh, li muy wax intérêt yi taalibe yi sëñ la mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñépp di leen sant bu baax di leen masaw di am mbégte it ci jotaay bi. te gis fi lu bare jàng fi tamit lu bare ni ma ko waxee woon sànq fële ñu ngi tàmmulee nuyoo bi ci sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne moom ngeen teg ci seen kanam ak sëñ Fallou Samb mi nga xam ne moom it ni mu ko waxee léegi yéen a ànd jël suñu Abdoulaye teg ko ci seen kanam ak mboolem ñi nga xam ne yéen ko seq liggéey bi damay wax ne daanaka mbooloo mi boo ci demee boo déggee ñu tudd turu jëwriñ xamal ne xamal ne pas-pas rekk leen boole jëwriñ moom du gis boppam ci leen lu dul pas-pas rek président nag mooy def léeg-léeg mu rax ndax day niru pal te gis naa ne ñu tuddee seen bopp jëwriñ ñëpp du ñu su bëgg feeñ sax ca la ñuy def ndax jëwriñ ci lañ ko xamee woon mooy ci tool mooy futtiku yor sa gopp di bay président nag ngóor la daan firi loolu bu ñu ko seetloo ci daayira yi léeg-léeg dina ci am ka ci gën a bëgg président boo ko feetee rek àddina rek lay bëgg te loolu day yàqu daayira waaye jëwriñ moom te gis naa fii dégg naa Fallou wax ko wax ko ci sëñ Abdoulaye te loolu laa fi gis ñu ngi nuyu nag kon bu baax ñépp tàmbalee ko ci sunu rakk yi fi nekk jiital ci ginnaaw bu ñu waxee sëñ Abdoulaye teg ci sëñ Abdourahmane mi nga xam ne moo fi teewal suñu waajur sëñ sëñ sëñ Saaliwu Mbàkke moom sëñ Afi mi nga xam ne moom lañ jagleel bés yi nga xam ne moom lañ fi yëngatu ñu ngi koy sant bu baax ci seen taxawaay ak coono bi di sant bu baax ñi nga xam ne ñëpp ñoom la àndal di sant tamit boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi doon waxtaan léegi ak mboolem ñi fi jël kàddu ci gis nañ fi kayite caam mi fi jël ci turu fondation Cheikh Ahmadou Bamba ak soxna yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant. di nuy tamit bu baax ñi nga xam ne mooy sëñ Saar ak ñi bokk yor daara ji gis nañ fi xale yi ñu ngi ko waxee ni ko Abdou Salaam waxe sànq jàngale xale yu mel nii du lu yomb waxuma laa nga di ko def ci ñaari fan te ñaari fan yi tamit du doon bis bu mat bi sax ay waxtu rek la ciy doon rawatina nag kii nga wax ne ñetti weer lañ ko jàngal may wax ne jàngalekat yooyu rek waxtu wu ne may gëm may gis ne ñu mat bàyyi xel lañ jàngale du yombul jàngalekat yi rekk nekk fii waaye xam nañ ne jàngal nit ak fii ñu ko defee ndax waxoon naa ko ci benn wax ne jëmmi environnement maanaam fi nit di nekk dafa am solo bu am solo ci pédagogie maanaam jàngale nit ka ngay jàngal fa mu nekk ak milieu ba mu nekk daf ci am solo lool rawatina nag muy fii nga xam ne làmmiñ wi sax dafay xaw a xaw a tuuti bariwu ak wuute lool ak làmmiñ wi nga xam ne mën nga koo jàngalee alxuraan nga mën cee jàngal xale mu xam ci lii loolu du lu yomb bon waxoon naa bari ki démb ne jàngale ci jumaay tubaab moo gën a yomb jàngale fii kon moo fii ëpp tuyaaba ndax fii la ëpp gën a jafe kon ñu ngi leen di gërëm di ndokkeel xale yi tamit di leen ñaanal yàlla mu sàmm leen ba liñ ci fas ak fañ bëgg ñu àgg fa ñu àgg fa ci jàmm di gërëm seeni waajur muy yu góor yi ak yu jigéen yi ndax fii yor fi xale fexe ba mu nangul la ba nga mën koo tënk ci lu demee nii du lu du lu yomb euh, di gërëm ñëpp nag muy njaboot gi fi nekk jullit yi moo xam tijaan lañu moo xam xaadir lañu ak ku mën di doon ci këri diine yi nga xam ne lu wax na ko léegi ñëw seq liggéey bi te def lu rafet ndax bu fekkee dara xew nañu ñëw fii wane ne seen barab la xam nañ ne barab bu barab lislaam rek la yemoon loolu tamit lu am solo la bu leen ci kenn jëlee ci lu demee noonu di gërëm ñëpp ñu tàmbali tamit ci conférence yi ñu ko wax sëñ Mourtada ñu ngi lay gërëm ci thème bu am solo bi ak ni nga ko traité bu baax ndax dañuy wax ne conférence jàngalee ko gën a yomb ndax boo dee jàngale xëy na dangay am. cours yooyu joxe ne ci lii laa koy joxe ñu xam ne lii la waaye conférence nag boo ci xasee dugg fu ne da fay wuti te loolu gëstu rek dafa jafe waxuma la nag gëstu ba dajale ci loo xam ne boo ko waxee day mel na ñoo bokk fu ñu jóge kooku beneen dimension la moo tax ma doon wax ne Nations Unies ak barab yooyu nañuy ñun bu nuy toogee di waxtaan sunu waxtaanu bopp kooku mën ngay nettali waaye boo demee bay dem ci yenn pare na te fi mu toll ci yoon wi sax conférence la ñu war di def bu baax maanaam di di analyser ci wàllu scientifique di ko xool di ko jàngat di jàngat waxi sëñ Tuubaa ci na muy gisee ak na mu doon xalaate ak na nga xam ne moom la am résultat bi mu am kon ñu ngi ci gërëm bu baax di gërëmet ñu ngi ci bokkal di Abdou Salaam moom dama koy wax toujours ne ko Euh, léeg-léeg li may wax baat mu fexe ba dugal ma ci ñu jógu ca bu ñu wéetee léeg-léeg mu xaw a sërëx ci yoo xam ne sax xam nga moom arabisan la euh, bu ko defee ndax bi may wax bu mer waraxal jan dama doon kaf rek waaye mu lu ci sonal ba far ñu maa ngi doon wax liat ma waaye bu loolu moom bu ma ci dugal euh, di ko di ci sant bu baax ci niñ ko ak Ahma sàmbu ak mbooleem ñi nga xam ne lim na leen muy sëñ Fallou Fall ñoom te jotagu ñëw woon wax ak sëñ Murtala Amar ñoom ak sëñ Xaadim loolu moo tax mu am solo ndax eh, loolu ngeen xam ne lu am solo la li ngeen ci jële na ngeen koy téye bu baax ndax du jàng ci leçon moo la koy may ay ay ay lu jafe la loo xam ne loo ci xam mën nga cee jaare xam bu bari mën nga cee jaare boo dee gëstu ko sax mën nga cee gën a yaatal sa gëstu te lool la jëriñ di gërëm suñu rakkit Muntaxa wax na ko bu baax moom itam ñu ngi koy sant bu baax ndax dañ leen di wax ne na ngeen jàng waaw da jàng te ñëpp la war sax waaye am na foo xam ne moom boo ko deful amoo benn lay doo ko am waaw doo am lenn loo mën a laye kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax di participer ci am na ci solo lool rawatina nag côté bi mu ko jëlee ndax côté bi mu ko jël muy wàllu kilifteef dama koy wax damay wax ne ñoom ñii waa kër sëñ waa kër Mamor Anta toujours ma di ko wax kon njabootu suñu affaire gi may wax ne ñooñu. man dama leen a naw lool te lu yàlla seereel la ci suñu biir xol di ko wax euh, damay wax ne ñi bokk ak sëñ Touba ba ci maam ma aram waxuma sax maam Mor Anta Sali la naan ko waaye maam ma aram kese ñu ko bokk ndax Mbàkke bu njëkk nun ko ay pël lanul rek daanaka ay sàmm nekk ngi ci biir boo demee Fuuta da nga gis lu ne tey gaa yëpp dañoo yëppal lool kon ndax la yàlla xam doy na léeg-léeg dañuy xaw a doy kon bi sëñ Touba gis ci la wali de jëmmi Mbàkke ji sant bi muy koo xam ne ku ko sant ñu wormaal la kon sëñ Tuubaa la ndax amoon na kon waaye li may wax ne di ko yéeme bokkam yii mooy loolu moo tax nga xam ne mbirum yàlla rekk moo jar loolu wala tudd bi ñu ko ko léegi nit gu yàlla bu gisee yàlla fenn day fàtte boppam loolu moo tax njabootam ñi mu bokkal maam war anta si sëñ ñoom ñoo ñoo maam Cerno ñoom gaay yooyu di boroom di kilifa damay wax ne ñoo bokk waajur te kenn gënu leen ndey ndey ndey sëñ tubaab boolewu ñoom sëñ Tuubaa leenu boole ak moom mooy yàlla ji nekk ci moom te xaw ma fu mu ko jëlee moo ko lijjanti ba am ko ñu topp loolu moo nu boole ak mm-hmm. mbokkam yi kat kenn gënu leen kon suñu jëlee seen bopp fàtte seen bopp damay wax ne lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la mooy ñu bokk ak moom maama aram ak maama Anta kon ku ci nekk ci barab yii muy sëñ Abdou ñoom nekk fii baar ak ñoom ñëw nekk fi ànd ak yéen ci liggéey bi loolu damay wax ne mooy li nga xam ne mooy tax nga nit ki am yëfi boppam waaw li ñëpp bokk moom giir rek lay mën a doon giir nag mën ngaa sooy mën ngaa am doo ca mën ngaa am ca tuuti waaye nag la nga amal sa bopp moom ko kenn du la ci xatal te loolu mooy lii nga xam ne mooy ngeen bàyyi lépp nekk ci liggéey bi leen ci sant bu baax di gërëm itam fàllu ak ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal fondation bi wax ngeen dëgg nag ni si daaw ngeen ko sampoon ndax bërki dem rek maa ngi koy wax ci ci ci ci New York bërki biig dama woote woon ndax léeg-léeg da ngay doo xam àdduna lu xew ndax euh, bi ngeen koy sos dañoo waxoon rek ne nañu fexe lu ñu dajale mbokk mi ñu booloo ndax man maa waxoon ne këri sëñ Tuubaa yi ñuy wax nga xam ne mooy këri lislaam nañ ko jéem a sàmm ngir ëllëg ndax bayit wi euh, kase wax fii li sox doo man fa tooxaacil akoonu biyaa wax nañ ko foto fu nekk sëñ Tuubaa moo ko wax dañuy jàppe mooy conquête yooyu nga xam ne moom la sëñ moom la lislaam amoon ci histoire nga xam ne Andalus boo fa demee ci Europe ak yu bare seeni jeex yi fa ak yi nga xam ne sax tubaab bi dañ ko nëbbu loolu lépp mi nga fa loolu lépp raaf léegi yenn yi nekk yeneen i yeneen i jaamukaay yàlla ci cin ci ñoom waaye nekkatul lu lislaam am la ko defoon mooy dara waralu ko woon lu dul rek dem ba fàtte la leen fa indi woon ñoom ñu nangu ko moo tax boo déggee ñu naan lii kër yi am na mas am sax ku ma dégg ñoo ne kër yi sëñ mais sëñ bokkut ak loolu ndax li leen indi fi ngeen nekk bi amul leen loolu wax nga ko sànq am na ci ñu bari ñu amuti kër am na ci ñoo xam ne seen la joxe seen kër doy mais lii ngeen fi joxe léegi am na ci ñoo xam ne waaju luñ ko woon moo tax nga xam ne loolu mais du ngeen ko rëccu nag man duma laaj wante damaa xam ne dofu leen parce que magum jëm mu jël xaalisam di ko jox nga wax ko mu wax ko ci yàlla rek ne kooku xam ne lu muy def te loolu bu leen ci kenn jegewul lu yàlla nag moo tax damay wax keroog ne damay toog ci ab jotaay ma gis ku yor mbuus kum tolloon rek nga génn ci sa poche def ci mu wóor ma ne loolu préparé wuloo ko ma ne nag loolu yomb na lool waaye nañu jàpp ne am am dañuy raxasu raxasu mi nag ki raxasu ba mu set ki ko yor nag mbuus mi na ko jox usine bay def de transformer ndox mi muy sëñ Touba bu ko defee dana set waaye nag bu ko naanee wala mu xëppoo ko moom dana am problème waaw waaye ñi ñi ñi ciy def ñoom am raxasu rek dañuy raxasu rek ba set ku ci ku jox am raxasu nag ne la raxasul nga raxasul sa loxo set kooku moom jàmm rek moo ca nekk loolu moo tax kon lii leen dajale mooy kër yi lañ wax kër yi lislaam la ndax ñëw ba fii amoo ko am say soxla ñu ne lay wutal barab bu mel nii nga xam ne lii ku ko amoon Tuubaa it doo wax dara sànq laa naan xam naa ku ko amoon ci dëkk yépp loolu nga di ko def gën caa bëgg sax yow xalaatoo sax sa bopp mais kooku ku ne xam ne ne missionnaire daal dañu la ko sant kon li ngeen fi def lii mooy barab yi moo tax ma ne ca ginnaaw ma waxoon ne nañu fexe ba tënk ko ci loo xam ne ëllëg ci si biir kenn bu ci man dara ndax su sunu doom yeeg sunu sëtaat yi kat ku ci nanguwut a jàng aw ci yoon ba ëllëg àddina rek ñor la mën ngaa xëy xëy ne këri sëñ Tuubaa yi ay wax la rek nañ ko jaay parce que tubaab yee koy mujj am na ñuy xalaat yooyu naan tubaab yee koy mujj tubaab yee koy mujj mooy lan boobu façon wax ku toll foofu ci niveau nga xam ne kon ñooñu amuñu gis-gis bu soy yu mel noonu nag moo tax nga xam ne jombul kon nag su ngeen ko tënkee ci fondation fondation du dola loo xam ne lu état di nangu la ngeen tënk ko ci yoon yoo xam ne bu ngeen ko amee kenn dutu ci mën a dara mu desal fi lislaam ba faaw ba sunu seen doom yii ngeen di am ndax xale yi kat ku xam na ne secret ngi ci man de ni ma gisee ñu di ko jànga ak niveau bi ñu mën a toll ci fii ak ni ngeen di jàngalee ku xam na ne ku leen dimbale yàlla pépinière lañ boo xam ne moo ñoo war a jël relais bi ëllëg pour mën leen taxaw taxawaay ngeen bëgg loolu moom lu mën a luñ mën a jàngat la kon nag loolu moo tax fan nii ngeen di def mu ngeen am barab bi pas-pas rek la du seen àll du seen dara wante pas-pas mooy maye lu nekk kon nag na ngeen gën a ànd nekk benn fondation bi ngeen gën koo yaatal amul kenn kuñ forcé ne ko defal nangam wala bokkal nangam ñun de duñu carrier dara wax naa leen ne man da la may carrier su ma yëfi bopp du ngeen ko sax xam xam naa ngeen dégg ko feneen lépp loo xam ne tamit ñi ngi koy def dañuy ci vérifier suñu conscience bu baax saa buñ gisee ci biir suñu xol lu cay rax ndax sëñ sëñ Abdoulaye dafa ma a dafa wax ñaari wax lu lu am solo yoo xam ne yépp am na solo medd ci am ndax dafa waxoon ne sëñ tubaab ba muy ñaan kenn nekkul woon sax ci ginnaawam naan ko amin muy lu waaye dégg naa xaw ma nag ex ni mu ko waxee taabir ba xaw nu mu ko ex nu mu exprimer nu mu ko waxee waaye daf ne Moustapha Bassirou mii topp ci sama kanam topp ci sama ginnaaw di la xasaay su ma fi bàyyi woon sëñ Touba mu ba ma fi te doom yi sëñ Touba la kon ku ne xam na ne kon lépp kon sëñ Touba la ginnaaw lépp sëñ Tuubaa la nag nga xam ne ñoom ñii njabootam sax ñoo ko gën noonu lañ ko noonu xame nañ ko noonu kon nun ñii tamit buñ ci dugg ci ay détails sëñ Tuubaa moo liggéeyal yàlla yàlla gërëm ko mag ñu baax ñi loolu lañ doon gise dañ doon yàlla daraam du ko sànni yonent yi wax ngeen ko léegi yonent yi dégg dégg naa Abdou Salaam di ko waxi nooxoon wax na loolu rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina minal kaafiriina dayyaaran lu ne nga wax woo naa leen guddi daawatum jihaaratum lu ne wax na ko ak waa asratu lum israan woo naa leen guddi loo naa leen bëccëg lu ne def naa ko te mënuma cee réussir kon yónnante yi sonn nañ lu ne daj nañ ko te taxul ñu am lañ bëgg kon nag teewul yàlla wutaat ay mbindeef yoo xam ne du ñu ay yónnante mu ne ñoo gën a réussir yónnante yi sëñ Tuubaa bokk ci bu ko defee nag ñu baax ñooñu ñëpp kenn ku ci ne bi ngay ñëwul da am loo indi am ñoo xam ne ñoom nga mën a àndal ngeen ànd kon nag loolu mu def nga xam ne moom la am ba ñu am ci lu mel nii am bunt yoo xam ne wóor na ne lañ cay nañ koy gisa ak nañ koy na muy amee résultat yi ci am xam nañ ne du luñ mën a du loo xam ne danga nga koy da nga koy def projet ba egg ca day ñëw rek nga xam ne lii yàlla da koo jaarale ci sa loxo kon nag ma fexe ba ànd boobu ñu ànd ko téye ko bu baax mooy ànd nekk benn ndax lépp luy kër yi bu fekkente ne defe nañ ko noonu nii ngeen di def baax na képp koo xam ne soxla na ngeen dem ko mu nekk ndax nguuru Amérique yi kat xam nañu bu baax wax naa leen ko bërki démb ne saa bu ma fi ñëwee waa département d'état dañ ñu recevoir toog ñun ay waxtu ñaari waxtu wala ñetti waxtu te ñooñu duñu ay duñu benn minute du du par du du caaxaan ci ñoom kon xam nañu bu baax a baax a baax lan moo xam moo xew xam nañu bu baaxit ne yéen nekk génn ngeen fi nekk ak fi lislaam toll nga xam ne wax nga ko léegi ci affaire terrorisme yi ndax bi ñuy kar yi njàng mi li tax ñuy gën a xale yi ñu gën a jàng mooy loolu ba muy carrière université Cheikh Ahmadou Bamba loolu lañ woon dañu daan am xale yu am baccalauréat yaa dem dikk dikk ñëw tàmbali di di indi ay mbubb yu gàtt di solo koppati di solo ay kiloot sax sikkim sikkim boo xam ne bokkut ak sunna di lu ne nga def ko loo xam ne da ngay culture la culture u jàmbar la wala nga jël loo xam ne bokkut ak diine yooyu yëpp nag ñun am loo xam ne noonu lu jafe la te mënuñu koo amee ci lu dul fexe ba yar xale yi teg leen ci yoon woo xam ne ëllëg si biir lii ngeen def dana am dana am solo moo tax xale yi nañu leen yar bu baax nañ leen bu baax te li ñuy wax tamit boo gisee ñuy wax ñu ñuy jàngal xale yi ci àdduna ndax biñ ñëwee dañu nañ bàyyi nañ fexe ba ndax xale bi xam lu nekk tamit baax na ci ba noppi nag téye diineem ndax fii ñu toll internet yeeg jëf yi. man ñun de ñi ngi bërki dem rek wax naa ñi nga xam ne xëy na Ahmad Samb wax naa ko ñoom Abdoulaat Ndong ne ko na ma na ma recensel xale yi nga xam ne ndax gis naa seen université d'été bi ñuy def Jamia Sayfa bi ñuy def gis naa xale yoo xam ne démonstration yi ñuy def ci wàllu journalisme rek daf lay jaaxal wax naa ko bërki dem mu recruté la mu recensé ma lu mat ay fanweeri ndi xale yoo xam ne kenn ku ci nekk bu taxawoon fi da ngay def dafa jàng journalisme dañoo bëgg même journaliste ñoo xam ne nit yi diine la doon xam fa ñu yem xam nañuy gëstoo xam la ñuy karye xam la ñuy def ndax loolu moo mën a tax fii diine toll ak fi lislaam toll nga xam ne ñii ci egg tey du tey lañ ko sos waa waa waa waa waa euh, nu mu tuddati waa frère musulman yooyu ak ñi nga xam ne ñoo am ci dëkk yi yépp du du ba ci benn laa din la ko jiitu lépp fekk na amoon na parce que wahabi yi moo jiitu mm-hmm. salafiste yi ñoo ji yooyu yëpp ay xalaat la woon yoo xam ne ba loolu la jiitu loolu sax xawaari joon yi parce que bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee ay tariixa yu ay yoon yu bari dafa am ay marja am na lu ñuy wax marja nga xam ne tey fu ne dara xees xew na fa fu ne dara lu ne am na fa loolu ñoo changé seeni tur ku ne karee ci sa yëf yëfi naar karee ci sa yëf ba mujj tasaaroo ku ne wut sa yëfi bopp sa moment bopp tuddee ko na nga neex hmm. mais boo ko xootee lépp seen objectif ak principe yi benn bi rek la mooy kenn ku ne fexe ba dugal ci diine loo xam ne yaa ko ci dugaleel sa bopp loolu moo tax ñun li ñu ci am ñu jéem a jéem a dajale suñu njaboot gi te loolu dara gënu cee am solo lii nga xam ne moom ngeen ko mën ngeen def kon yi nañ leen dimbale bu baax suñu ko deful ndax euh, fii ñooñu nga xam ne moom nga wax léegi seeni xalaat ak seeni kii yàgg na yàgg na boo demee Sénégal ñu nga fay ubbi école boo demee sa ci réew yi Afrique yi ñu nga fay ubbi ay daara moo tax bi ma gisee ñuy wax ay daara daara yi di ci bëgg ay dugal naan tubaab yi yéen dañoo bañ daara dangay sax jaaxle ndax damay wax ne daara lan moo ko war a lëkkale akum yalwaan yalwaan moo gën a suufee ci àdduna kon naka nga koy bëgg a boole lu gën a kawe ci àdduna muy jàngum alxuraan bu ko defee nga bëgg a jaboliser loolu fexe ba nit ñi loolu lépp bu tubaab yi ñoom ñoo xam lañ jublu ñoo xam waaye ak lu mën a xew damay wax ne ñun li ñu gis te war koo fonke alxuraan war koo fonke xale yu ndaw yii di jàng alxuraan ñu fexe ba ñu ñàkk bu ñu ñàkk jom buñ dugg ci lu ñu wëtt dugg def naa ne loolu moo ëpp solo warmaale ko alxuraan moo ëpp solo nga di ko teg ci mbedd mu yelwaan mm-hmm. te boo ko waxee sax léegi ñu ne xëy na gouvernement liggéeyul gouvernement bi d'accord bu leen neexee ñu xalaat waaye ñun ñi nga xam ne ñooy yor daara yi ñoo war warmaal alxuraan ba képp ku ci yëngu ñu warmaal la ba duñ la gis nga ci sa anam gu taraxte ñoo waroon sax rus tubaab yi ñu ay doom yi ñuy ñuy yelwaan yelwaan façon bi ñu koy defee loolu lépp li ma bëgg wax mooy xale yii duñ leen nañ leen tàmbale jàppale leen wax naa sax fee ñeen ne ko bu ngeen manee sax yéen ñii seeni waajur su ngeen ko mënee ngeen defee leen ay épargne yoo xam ne at at bu jot weer bu ñuy vacances ngeen jël ci fukki fan ak juróom ñu fexe ba dajale leen kenn ku nekk lu ñu amee billet ñëw Sénégal bu ñëwee wër école yi ndax am na solo lool ndax kat Azhar am na solo université Cheikh Ahmadou tamit modèle la boo xam ne boo am solo la ndax wax naa leen ko suba suba directeur général de l'UNESCO dafa jóg spécial ni day ñëw université ci université Cheikh Ahmadou Bamba kon ñooñu bay wax ne modèle boobu sax dafa bëgg ñu proposé ko ci Afrique am na fa séminaire bu mu fa def daaw ci at ci wane ne dajale fa ay pays Afrique rek te lu toll ne benn école privée boo xam ne amagul euh, mu mu attante loola kon ñoom ba tey ñi ngi kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi gëstu lu baax te weesuwul lu dul téye suñu diine mais téye itam àdduna ba kenn duñu ci mën a nax loolu képp mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy système bi te loolu moo doon système sañ Touba sëñ Touba ba muy wax tëj diir boobu may wax dama naan tëj diir boobu may wax dama naan di gën a fi moom niveau bi ñu toll fi mu ne wala état bi ñu toll mooy turiyatun tayyibatun tujaddidu ndax jël na bi Moustapha tëj maanaam tujaddidu wa tëj tey tëj diir il faut mu bokk ak mu ànd ak ijtihaad suñu àndul rek du mën a sotti maanaam li ngay li ngay li ngay ren beesal danga nga ciy karyewaale karyewaale lu mën a ànd ak moom te moo tax mën a duriya boobu itam du ñun ñëpp de ñun ñëpp ko bokk parce que tey ba boobu mooy mooy was boobu moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo bu fekkente ne kooku nag mënul nekk koo xam ne daf caa bokk ba noppi nekk ci lu ko neex fu ko neex dugg lu ko neex wax lu ko neex def ba noppi kooku mënul nekk kon li mu mën nekk mooy képp koo xam ne aju nga ci moom wala nga bëgg nga wala yéene nga ci moom te bëgg lu baax te tege ca yoon wa kooku mën ngaa dugg ci biir loolu kon loolu mooy fexe ba xale yi xam fexe ba xale yi xam àdduna mais ñu xam seen diine fexe ba xale yi am yar école boobu nga xam ne moom la carrière woon moom la si modèle am boobu moom xam ne moom la carrière woon ma doon ko junj foofu ci ginnaaw Mame Mor Anta loolu moo ëmb lépp buñ tolloo ci toog boobaak léegi mu war a mat mu jege téeméer kon te yonent bi waxoon loolu ne téeméeri at yu nekk dana am dana am dana yàlla dana yoon yónni man yab la man yu jëdd loo dinoo kon loolu dafa dafa am koo xam ne kon dañoo jàpp ne nun ñi buñ buñ sàggane buñ buñ buñ doyadul suñu bopp kon loolu lépp dafa wane ne rek ndax xale yi nañu góorlu bu baax na ngeen fexe ba xale yi sëñ sëñ sëñ abdulaat na ngeen fexe ba xale yi suñ ko mënee seeni waajur bu ñu leen dee dajalee far benn dollar wala ñaari dollar ba weer bi at mi jot ku ci am billet nga ñëw la ca des xasee egsi foofu moom la ca des ñun danañ ko mën a danañ ko mën a yor jël ko en danañ xam danañ xam te loolu gouvernement bi itam danañ ko nangu ndax wax nañu leen ba jàpp nañ ne danañ nu mën a jàppale ci ay jàngalekat ndax nee nañ leen ñun dañoo am ay njaboot ak ñoo xam ne sax fii lañ juddoo ak ñoo xam ne eh, waaye fii la ñu kon kër yi nga xam ne mooy këri sëñ Tuubaa il faut ñu investir suñu jàngalekati bopp ndax su ko deful it mën nañ fi loolu tax ma waxoon sañ Xaadim ñoo ñoom nañu fexe ba dugg ci seen dugg ci seen piir bu ko defee ñu am seen groupe seen kii boo xam ne lépp ndax bu loolu amee wax nañ leen ko ba ba nguuru Amérique bi jugoon nañ ci ba ñu ngi ci modalité depuis daaw ba léegi ñu ngi ci seen mbir nag moo yeex waaye accepté dinaa xas nañ ko nangu la ca des nag moom mooy topp ko lañ leen waxit luñ nangu la lu neex a dégg la ndax mooy kër yi ñuy am fii du kër gu ñuy tëdd kan jóge ko yeewu dañ ko def muy barab yoo xam ne ay ay jàngukaay la jàngukaay yooyu nag suñu doome fi nekk ak ñu nga xam ne sax waa réew mi lañu tëdd ko ci diine kon ñun war nañoo am jàngalekat boo xam ne ñun ñoo koy ñoo koy formé parce que tamit boo nee jàngalekat rek ku ne jóg ñëw dugal ci xale yi loo xam ne bokkut ak ni ngeen ko doon waxee léegi loolu il faut ñu teel ko ñu teel ko gàttandoo moo tax ba loolu lépp jógoon nañ ci waaye lu mu ci mën di doon yéen ngeen gën a laxasuwaat gën a dimbaliwaat xale yi ndax xale ba am benn weer ñaari weer ñetti weer ci ci dëkk bii ba noppi mën a egg ci niveau boo xam ne am na ñu nekk ci Sénégal mën a amum at jàng ko wala ñaari at doo fee iji sax wala doo jàng ñaari beneen affaire la kon ñii dañ leen am na lu leen préparé te yàlla moo moo moo moo ko te préparation la préparation boo xam ne du yéen yéen a ko def bu ñu leen dimbalee danañ gis façon nit boo xam ne beneen niveau lay doon kon nag nañ leen jàppale bu ko defee loolu mu waxee ñu di ci jàpp buñ fexee ba ngeen at bu jot ñu fexe ba jël ci fukki xale wala ñu ku man rek nga fexe ba dajalee sa doom bi ñu jëlal leen ñaanal leen fii wax ko wax ko ambassadeur ambassade bi wala consulat bi ñu fexe ba taxawal leen ci organiser ko ñun bu ñu ñëwee danañ leen mën a toppatoo fan yee ñu fay am dalal leen yóbbu leen ci barab yu bari ñu xam loolu am na ci solo lool boo ko defee loolu yi tamit nañ ko bàyyi bàyyi xel te xam ne li ngeen def rëy na lool mais il faut ngeen bàyyi xel nag leneen lay ñëw ci kanam ndax am na ñoo xam ne kat ci noonu la ñu bokk wala ci yoon wi mooy li sëñ Mourtala daan wax rek ku ci bokkul te kenn mënu lu ci génne mu ngi ci yoon wi am ñoo xam ne dañ ci bokkul te kenn mënu leen ci ñooñu nag bu ñu demee ba ca kanam ñooy wëlbati ko ne kër yi tubaa Tuubaa jëriñul dara nañ ko jaay te loolu xëy na suñuy mën naa bàyyi xel ndax feeg téeméeri at ak ñaar téeméer du ñu fekk te mënoo def lu baax nag ba noppi wëlbatiku am ñu la koy ñu la koy ñuul ñu ko ñu koy yàq kon nag loolu moo tax ñuy wax kon na ngeen gën a jàppoo na ngeen gën a nekk ci ànd gi fondation bi ngeen koo dëgëral ni nga ko waxee tamit ginnaaw léegi lu mat ay état yu bare ngi ci ku ci ngeen xam ne lool rek la li ci ànd gi moom moo leen di dimbale moo leen di may doole ni ngeen ko waxee tamit kenn ku ci joxe tamit la ngay joxe nga xam ne ñàkkoo ko fenn moom bu ñu la naxee ci lu dul noonu sax ñàkkoo ko waxuma laa nag muy loo xam ne day njëriñ kon ñaar la ngeen di joxe kenn ku ne na nga jàpp ne lu mu mën a joxe rek yàlla mën na ko koo fulal te bu boobaa loolu mooy te dana gis njariñ kon nag yàlla na ci yàlla dimbali kon ñu ngi am mbégte bu baax di leen di leen sant di xam ne suñu xool sedd na bu baax ñun nag defuñu ci dara ñun daal li ñu xam mooy fu ñu gis euh, fu ñu gis euh, loo xam ne daal lu wóor la dañ ci sawat loolu moom lañ fekk fii rek kon nag euh, lool rek moo nu booleeg yéen it kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm soxna yi tamit ngeen gën a góorgóorlu ngeen góorgóorlu bu baax a baax ndax fu ñu dem danañ gis nañu ne. ni ko ni ko sëñ Fall ñoom waxee rek kenn mënul leen ci ci ci la ngeen seen alal seen temps ku ne xam na ne fii jigéen ak jamono ji fii dana metti na lool waaye ngeen di ñàq di sonn lu ngeen lu ñuy joxe ngeen ngeen joxe lu ñuy daan seen doole loolu na ngeen xam ne chance la ndax fii mën nga fee ñëw am na ñu nekk ñu Sénégal ñoo xam ne tëlatuñ sax yooyu waaye ñu nga ci leneen bés bu set ñàkk lu bare te doon lu doon lu am solo. kon nag bu ngeen génnee ba ñëw ci barab yi nga xam ne loolu fii la gënoon a mën a yo mën a mën a nekkee mm-hmm. ndax fii gisul leen fi lu leen di war a mën a tënk ngeen bàyyi seen lépp di dajaloo ci lu baax di jël seen alal ak seen temps di ko ci def di jël seen njaboot ji di ko di ko ji ci lu mel nii na ngeen xam ne loolu tamit da ngeen a bokk ci ñi ñuy liggéeyloo am na ñoo xam ne leen di liggéeyloo am na ñu bëgg a liggéey nag waaye na ñoo xam ne dañu leen di liggéeyloo bu ngeen lijjantee nag bopp bokk ci ñi ñuy liggéeyloo kon loolu dafa mel ne lu yàlla lu la ci ci yéen yàlla leen ci yàlla sàmm moom itam bu mu def na am lu nekk mu am lu nekk it nag ba noppi itam di ko ko euh, di ko ko di ko ko di ko ko loolu it amul solo kooku amul solo kon yàlla na leen yàlla sàmm te may leen ngeen njaboot gi barkeel ñi ci amul ay sëriñ yàlla leen ko yàlla may te ñu te nga te yàlla defal leen jàmm te kenn ku fi nekk li leen fi téye muy wàllu crédit yeeg wàllu yooyu yëpp nekk leen ci jàmm rek bu mu leen tax a dugg ci lu ngeen war a dugg kenn ku ne daan lay ajam yàlla na ko ko yàlla fajal. amiin suñu xol sedd na bu baax. jërë ngeen jëf sëñ ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xam ne yëpp yéen a seq liggéey bi gis nañ daanaka sax kan doo xàmmee doo fi dégg mukk ko naan kee kee di ko tudd koo ci gis rek da jàpp ne moom jàpp ne moo war a yor liggéey loolu nag mooy ànd bu baax ànd moom boo ci gisee ñoo xam ne la bëgg xam nañ ko kenn ku ne defe ne moom moo war a yor liggéey bi rek boobu ànd moom seytaane bu ci mën dara kon yàlla na ci yàlla musal ñu ngi gërëm bu baax gis nañu tamit seen exposition tey jii tamit bi ñu gisee ak ñi lu am solo la ndax yëf yi dafa toll koo xam ne ki ko xamul da koy won te loolu gis naa méthode boo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la mooy ci suba ci sant ci ngoon si bi ngeen di bi ngeen di exposé loo xam ne ci anam ci méthode boo xam ne wala ci anam boo xam ne bu bu bu ñu xam la boo xam ne lu am solo la loo xam ne ñëpp waroon nañu di di jéem a xool nu ñuy war a jëfandikoo ñu anam ku mel noonu kon daal ñu ngi leen di gërëm bi leen sant di ñaan yàlla yàlla ñu ñu fekkewaat ko. di ñaan yàlla yi defal leen jàmm yokkal leen xéewal yi kenn ku ci nekk loo def te yàlla tax rek yàlla na la ko yàlla fay ak sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum kon ñu ngi taxaw ak euh, daayira Soxna Jaara ci njiitu jëwriñ ji di Soxna Njaay euh, duñ def rek lu dut euh, jébbal ko kàddu gi Euh, mu présenté ñu mbooloo mi nga xam ne moom la àndal ak euh, nan lañ taxawee tey ci édition bi nga xam ne mooy euh, Bamba Day ñu fàttali leen ko rek ñu amaloon ko fii tey ci Detroit ci kër Serigne Touba bi nga xam ne moo fi féete ci njiitul fondation Khadim Rassoul lu état Michigan. kon soxna Ndiaye duñ def rek lu dul nga présenté ñu mbooloo mi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bi dikkal ñu rek ci taxawaay bi nga xam ne daayira soxna jaara taxaw na ko ci liggéey bi. bisimilahi rahmaani rahim asbilahi mina seytaani rajim ñu ngi julli ci yàlla di julli si yonent bi ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant sëriñ Touba di sant Soxna jaar man nag maa ngi sant ñëpp mu ngi si gën daayira maam Jaara ñun ñoo ngi nii soxna As Mbàkke mu sëñ Murtala mooy suñu jëwrin mi ngi nii soxna Kumba Jóob xam nañ ko soxna Ayda Gueye soxna maam Fatou Diop soxna maam Toob soxna Musli soxna Faama Mbacke soxna Fall Mbacke mi ngi nii mm, guddi maam jaara gi jeex na jàll jàll na si jàmm tàmbali nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina di sant sëñ maam moor di ko gërëm di ñaan ci yàlla yoonu sëñ Touba yi lim ciy def yal na ko yàlla jàppale te taxawal ko. may ko fan gudd ak wér lépp lu mu simb ci yoon yal na ko àggale te ñu ànd koog moom te ñun amuñu lu dul ndigal ndigal rek la ñuy déglu sëñ Touba rek la yaakaar te ndigal rek ci la ñuy wéy ñi ngi sant jëw suñu jëwriñ Fallou sàmb sant ñi mu àndal di sant ñëpp man nag mënu maa wax bu baax maa ngi bàyyi jëwriñ yi ñu àggale li ci des. xanaa jox kàddu gi. waaw salaamaaleykum. alhamdulilahi rabbil alamina defoon nañu ko daaw comme niñ ko doon defee ay ati at yàlla dogal ñu fekkewaat ko ci coobareem kon ñu ngi sant yàlla bu baax naan alhamdulilahi rabbil alamin di sant Serigne Touba bu baax a baax ndax lii yëpp moom la moo moo ñu boole kenn ku nekk ci ñun rek ñu ci bari xamante wu ñu woon ci Sénégal waaye yàlla dogal na ba ñu daje fii ci Detroit gii di ko liggéeyal fii kon ñun mën nañoo tudde suñu bopp sori su jige ndax ñu ngi ci digal ndigali Serigne Touba la mu bëggoon ci lañu nekk di daw fu ñu toll ay terrain tudde suñu bopp nag soxna Jaariyatu Laay soxna jaar Laay di maami soxna Astu Cerno Mbàkke xam ne mooy sunu jëwrin di doomi Cheikh Mourtala Mbàkke radiyallaahu anhu yàlla yokk leeram euh, di bay ci tool bi rek euh, li Serigne Mourtala bëggoon muy lislaam bi egg fu fu bët frontière yi Sénégal ci la nekk nekk ci ginnaaw sëñ Mamor rek neewul suma doon góor jigéen la waaye fu càmm yi teg seen tànk bu ñu teggee rek gestoo yem ci moom kon nag Mbàkke ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool yàgg ñëw jiite yàgg ànd ak ñun liggéey bi ah ñun waa Detroit nag fii mooy daayira Taysiroul Rassir di fondation Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Moustapha ñun ñuy soxna yi dégg ngeen ni ko suñu jëwrin sànq waxee muy Sëriñ Fallou sàmb fii mun ñu ni ñii ñooy daayira maam jaare bi lii mooy daayira góor ñi ñun ñëpp benn lan su poroxaan xewlee ñu yëkkati ci kees gi jox ñu ñu yóbbu su euh, màggal jotee ñun ñëpp kenn xàmmewul góor kenn xàmmewul jigéen ñëpp liggéey man mii di wax soxna Kumba maa njëkk a yore daayira maam jaara fii ci Detroit yore naa ko ay at ba teg ko ci loxo soxna Fatim mu yore ko yore mu rafet moom ba teg ko ci loxo soxna Ayda Gueye mii di rek mu yore ko yore rafet ba mu egg ci loxo soxna Njaay mii moom it mu yor ko yor bu rafet fii xàmmee woo jëwrin xàmmee woo kii moo topp ci kii moo topp ci kaa ñun ñëpp dañoo laxasaayu takku rek di liggéey ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba bëgg soxna Jaara bëgg ko ni ñuy ñaan nag ci yàlla suñu ànd bi yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba dëgërël ba liñ ciy liggéey mu ñu daje ceeg ngërëmul soxna jaar ak ngërëmul Serigne Touba. tey ñaanal nag sëñ Mamour Mbacke mii nga xam ne mooy sunu guide religieux moom la ñu Cheikh Mourtala bàyyil wax na ko sànq sëñ Mourtala jotul egsi fii ci tànk waaye ndigalam egsi na fi te sëñ maamoor mottali na jéegoom ya ndax ñun dañ fi daan jóge di dem di defi marche ñuy ànd ak muy américain waaso wu nekk waaye ci mbaaxu yàlla sëñ Mourtala ñibbi na àjjana waaye sëñ Mamour desewul puso bi mu réer fépp foo xam ne sëñ Mourtala bëggoon na fa egg te bëggoon na diine jéeg lislaam bi ak liggéey sëriñ tubaab bi egg fa Mbàkke mi ngi fi nag koy mi ngi ci dañ koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko kattanal ko cat seexlu ko yàlla yokk fanam fekk fanam mu yàgg ñëw jiite ñu yàgg a topp ci ginnaawam nekk ci liggéeyub sëriñ tubaab bi yal nañ ko yàlla defal ma bàyyi kàddu gi ak ñeneen ñoom it ñu barkeelu ci gàttal rek euh, soxna Aida bu dee am na loo ciy sànni bala ñoo jox soxna Astu mu tëj waxtaan. auzu billaahi mina saytaan rajim bismillaahi rahmaani ñoo ngi sant yàlla di julli ci yeneen bi sallallaahu alayhi di sant xaadim rasul te xam ni sunu ànd bi day ànd boo xam ni ànd bu dëggu ndax sëñ ci dani maanaam bu ngeen dee ànd te bu bu fekkee ni man maa leen boole maanaam na ngeen jàppante ni ñu bokk ndey baay te ñun Detroit gi dañoo jàppante ñu bokk ndey ak baay. man nag kàddu yi ma ciy def mooy damay soññee ndax li ñu sëñ Mourtala Mbacke sampal fii rëy na maanaam bu doon ab am-am dama naan wurus wurus la ak ak ak jamaa kon àddina bi ñu nekk kenn mënut ne mënumaa am fu ma liggéeyale sëriñ Touba déedéet foo dem sëñ Mourtala xàll na ko xàll na fépp li sëñ li sëñ Saaliw naan yoonu àjjana de xaaxaama ki dëkk kese la. sëñ Moutala dañoo dindil xaaxaan yi dindil ñu dëgg yi li ci des nag mooy ñun ñoo war a góor góorlu te moytu yi texee di yi ndax bis bi wurus bu gànjaru lañ fi jële wurus bu gànjaru lañ fi jële kon tey bu fekkee ni génn nañ am koo xamante si daa yëgal jataay boo xam jataayi texee da la boo nee naa dem ngir ne kii kii kat sama mbokkum wëllëre wala dara ma dem ca boo demee ba dugg mi ngi mel nañ daay guy tàkk boo duggee waxuma la wurus wa nga yor ak la nga yor lépp fa nga koy yebbi bu ko sëñ Touba waxee ndax maanaam boole lu baax ak boole le safaan wa dafa àndu ndax mi ngi mel ne ngay xol bi mooy mbaar mi nga daaj mooy njénne mooy xol bi bukki yi mooy mbiri mbiri àddina euh, xarit talaa yi mooy yu baax yi te sëñ Touba loo ko booleel mu dem bale fa te ñun jigéen ñun sëñ Touba dañoo beral loxo dañoo beral loxo te xamuñu ko boo dégloo dañi bu ëllëgee dama ñaan gaal ngay déqee daaru minnam jëm àjjana dafa ñaan sëñ Basiru kondir ko te sëñ Basiru lu mu jiite poroxaan waaw kon ñun dañoo war a góor góorlu lépp luñ liggéey ku ñu woo jataayu taxee di ñu toog bañ a dem liggéeyal sëñ Touba bu wér xam li ñu yàlla defal li ñu yàlla defal suñuy maamaat amuñu ko suñuy maamaat maam amuñu ko man nag maa ngi sant bu wér ba ma yàlla defee may murit ma juddu doon taalibe sëñ Touba. dañ koy gàttal soxna Astou euh, gis nga ko mel na ni euh, xanaa rek nga tëj waxtaan wi ndax yaakaar naa ne jafe na euh, nga dem ci barab fekk ñu yor daayira soxna jaara ñeent ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne ku ci nekk nekkoon nga jëwriñ ji. wëlbatiku àndaat seq liggéey boobu yaakaar naa ni man boog maa ngi koy soog a gis xanaa rek ñu jox la kàddu yi nga tëj. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu jërëjëf Sëriñ Bamba ngi kontaan ci yéen bu ci seen teewaay gis nañ ba ñëwee ba léegi noppaluwu leen yéen a ngi ci liggéey bi di ci jàpp nu wér a wér a wér nag ñu ngi ñëw fii ci dëkk boo xam ne mooy Guitouré Touré ku ne xam na ne dëkk la bu bari histoire bari boo xam ne euh, lu fi nekk tey nag ñu nekk fii ci kër Serigne Touba gi xam ne ku ne gis na kër gi ni mu toll ak ni mu xam ne mënoo dem ci benn dëkk ba fekk fa kër gu toll nii ñuy ñaanal nag euh, sëñ Fallou sàmm mi xam ne mooy jëwriñ bi yàlla may ko fan gu doog wér ci liggéey bu rafet bi muy nekk fii ak soxna Ndiaye mi xam ne moo jiite jigéen ñi daari soxna jaara Euh, li nga wax rek gis nga euh, sëñ tubaab bi fi set day wane day wane euh, kiimaan ay kiimaan yi muy wane nga xam nga ne àndub jigéen ni mu compliqué waaye gis nga ko jëwriñ yi nga njëkk a waxal ñëpp jiite nañ daayira bi te tey dañoo wëlbati ko àndaat ak soxna Ndiaye di liggéey soxna jaara parce xam nañ ne liggéey sëriñ Touba rek moo wóor liggéeyu sëriñ soxna jaara moom rek moo wóor boo fi ñëwee xàmmee woo ka nekk jëwriñ bi ka nekk jëwriñ ñoom ñëpp benn lañ góor ak jigéen comme ni ko sëñ Fall Samb waxee muy muy muy ànd bu rafet nag boo xam ne dañ koy ànd ci yàlla rek a tax ak Serigne Touba moo tax ñoom vraiment ñu ngi leen di ñaanal fan gudd ak wér di leen ñaanal mboolem waa soxna jaara muy góor muy jigéen ci côté góor yi ñu ngi leen di ñaanal di di ñaanal Serigne Mamour mi xam ne mooy suñu jëwriñ te ku ne xam ne liggéey ba fam yemoon ak fi xam ne fi la ko jëlee ak fi mu ko eggale tey ku ne xam na am na ci yokk yokk bu wér a wér a kon nag ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér di ñaanal sëñ si di maxtaari euh, yàlla may ko fan bu gudd ak wér ak mboolem seen roo yëpp yi nekk ci Sénégal yéen nag ñu leen di sant ndax wax dëgg yàlla Touba Bichri daal euh, kontaan nañ ci ci ñoom bu wér a wér a wér ñoru leen ndax bañ wàccee ba léegi li ma waxoon rek. ñu ngi ànd ak yéen fépp fu ñu dem rek ci seen teewaay ak seen liggéey ñu ngi sant ñu ngi leen di sant baax di sant seen jëwrin euh, xam ne daal kontaan nañ ci yéen lu ngeen bëgg yaa xam yàlla na leen ko yàlla defal ma ànd ak sama doom nag soxna faale mu ñëw nag ndeysaan fekk si bis bi muy muy lu neex ci ñun ndax suñu doom na sañ xaadim aw baa ko jur moom tam rafet na kontaan nañ ci teewaayam ñu ngi leen sant yéen ñëpp ci seen wax rafet ji ngeen fi wax kenn amul leen loo ciy teg sax xanaa dafa mënut a ñàkk rek waaye yéen li ma waroon a wax yëpp sax wax ngeen ko kon ñu ngi leen di remercier bu baax jërëjëf Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñi ngi nag nii ci jeexantal bi euh, ci bis bi nga xam ne tey ñi ngi woon fii ci Michigan nekk euh, ci Detroit muy Ahmadou Bamba Day bi nga xam ne door nañ ko ci le 22 juillet ba tey ji ñu koy wéyale te ñu ubbee woon ko fële ca Montréal ca Canada tey gis ngeen liggéey boobu ñu ngi ko ubbee ci jullik ajuma gi nga xam ne eh, kii di imaamu kër gi di eh, sëriñ Abdou Lahad Mbacké moo jiite julli googu ci teewaayu mbokki taalibe yëpp eh, ci loolu it bi julli gi jeexee amal nañ fi it ay waxtaan yoo xam ne yu am solo la panel bi nga xam ne kii di sëriñ Mourtala Mboup dem indi fi waxtaan wu am solo waaye itam ak ñeneen ñi nga xam ne jox nañ leen kàddu ñu yëkkati ko ci kaw loolu itam ñu teewe fi li nga xam ne dañ ko renouveler muy li nga xam ne dañ ko jagleel fii ci Michigan euh, Kër Serigne Touba muy euh, proclamation bi nga xam ne ren encore euh, l'état du Michigan décrété na ko pour Serigne Touba Khadim Rasoul muy bés boo xam ne di bésu le 5 août muy bés boo xam ne dañ ko jagleel Serigne Touba Khadim Rasoul fii ci état Michigan. ci kaw loolu it gis ngeen euh, waxtaan wi nga xam ne amoon na fële ci biir euh, te sëriñ bi seqoon ko ak ñi nga xam ne ñooy euh, autorités yi dëkk bi ak autorités état bi waaye itam ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoo seq fondation Khadim Rassoul état bi Michigan kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii moo doonoon liggéey bi ñu leen ko doon digtal àndoon ci ak ci wàllu caméra bi sëriñ ji bi laay Diop ñu fas yéene it wéyale liggéey bi comme nañ leen ko waxee woon rek ndax bu ñu it noonu lañ fas yéene wéyee jubali fële ca Louisville bu ñu fa jógee jàll Cincinnati bala ñoo dem fële ci Raleigh kon mbokk jullit yi mbokk taalibe du duñ def rek lu dul jox leen dox daje suba incha allah fële ci Louisville asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu